Touba Madiana di ben quartier bu nek ci dëkk bu sel bi di Touba bok ci quartier yi gën a mu doon quartier bo xamé ni askan woo fa dëkke ñi ngi dund ay jafé jafé yu méttee metti dir bu yag ngi ni jëm ci ay tata ndox waxtu nawet ak ñak lamp mbedd yi nga xamé dana leral gox bi ba nga xamé dana mëna dox seen yité sa yu nek bokk yooyu tamit jafe-jafe yi ci gën a tar mooy ñàkkum ndox mi nga xamee ni ñu ngi koy dund bu yàgg ngi nii. ñàkkum ndox maa ngi nii màggal bu ñëwee xale yi duñ lettu duñ fóot duñ raggu ndax ñàkkum ndox nun bu ñu sañoon amum ndox ndax ndoxanu gën a lépp luñ mën a am root nan ba nu rootul nit gis nga suñu robinet yi waw koŋŋ amuñu ndox amuñu dara xale yi duñu fóot duñu sangu. rot na ba sama kang bi bop bi dañ dafa defu kang fim ne nun kat buñu sañan amum ndox lu nu mala a nak nag lu may am ndox mom lañ bëgg ta buñu sañan amum ndox ndox Touba ku fi dëkk rek am ndox dong moy sa problème ne mom neex na wax dëgg sha Allah borom dëkk bi def na fi xéewal waye ndox dal mo xawa ñak buñu sañon dal Yalla suñu borom defal nu amum ndox jéeg gi nuru nit di tok seen kër yi ak suba ku ñew fekk leen fi waaye tun ndax ndax amum rot ta xam nga ne jabon mom rot ndox rek moy walam ndox rek moy lim wara am ndax bu ko amé rek Yalla dimbali ko waaw mu toog ci këram nun na buñ sañoon yéen xale yu góor yi yëpp war ngeen a ami soxna yàlla sunu borom dimbali nu Touba Madiyana gi amum ndox Touba fees deel lakkum ndox. dugg fu ne juróom fukki bi dongo nga fa bu màggal jotee du leet sama bopp bi tey ma ko nuppi woon ab xaang la def karaw newu ci danoo yenoo yenoo yenoo ba wow fi ne bi fi seet sax dan naan la na la sa yaay jëndal solukaay na la jëndal juróom fukki bi dong na la jëndal paan na la jëndal kocc basee yi ndax foo ndax feebar mbolo mi lañuy ñuy bañ waaye ñun wa Madiyana ñoo ngi ci mbolo mi ndax ba sey yéen ay sëgg di doronté dañ lay sotti ndox ma sax bo diké da nga tooxee màggal jété duñ sang duñ fóon tim sax boko rusé bo diké dikkee yàppoo boo ko joxee gan nga duñ ko lek ndax day xam ndox la am ndox moko ñu njuruge ah kay mom yéen kay mom yéen kay mom dal leen ñaanal rek ah ñak ndox mi de def ñun jigéen Madiyana dañu ron ba son waaw ah, manki ndox gi mo mitina ñu gëm ñu ndox màggal lañ daan manqué ndox léegi nag weer bu nekk fukki fan yi ñu am ndox fu ñaar fukki fan yi moom dañ koy manqué ndox dañuy root dañuy root dañuy jënd waaw suñ góor sax dañoo jënd ba soon cinq cent mille francs la ñuy ndox te ndox moom mënut a ñàkk ci nit dund li noonu ndox mënutee ñàkk wax dëgg ñun jéegi man yaani moom ku ñu dimbale ci ndox dinañ sant moom dëgg yàlla dañoo sonn waaw waaw waaye ñu waaw ñu wax dëgg yàlla jàmbaar lañ ci moom ñu ngi jàppale manqué nañ ndox suñu mbedd dafa bari ndox bu tawee suñu mbedd yi foo jaar da ngay xuus waaw ak manqué ndox moom lañ boo def dëgg yàlla dañoo sonn moom dañuy jën dañuy root yàgg na moom waaw yàgg na fa dëgg waaye nag at mi moom wax dëgg yàlla ni mu def moom daaw ne def moom dañ naa ne jën moom dëgg waaye seeg màggal la daal def waaye léegi moom weer wu jot bu ñu amee fukki fan ndax ñaar ki fay lañ koy rooti waaw wax dëgg dañuy rooti waaw ah, ànd ak góor waaw ah, suñuy góor waaw fajar kay la ñuy yeew su fekkee kay ndox kay manqué dëgg quatre heures la ñuy yeew di wër nag da ngay kër goo dem ñu la amuñu ndox waaw waaw day yàq suñu liggéey tardé suñu liggéey waaw Madiyana wax dëgg liggéey moom métti na ndax boo xëyee fajar war a liggéey sax nag jaay dangay xëy na ci ndox di root ba liisee jot xam nga loolu dafa métti waaw ku jàpp jàppale daal dëgg yàlla bëgg nañ ko jàppale moom. waaw nañ ci dugal seen loxo moom bu soobee yàlla waaw mbokki sama mbokki jigéen daal li ma leen wax en tant que moom nañ ci jàpp bu baax waaw lu waaye daal na ko ci def ndax wax dëgg joxe par 1000 euh, francs par at. 500 par weer moo gën wax rek chaque jour nga jaay 1000 francs nga jënd 1000 francs ndox te tax nag am ndox sax nag ndax 1000 francs jënd ñu jaboot ci ndox wax dëgg métti na moom waaw dangeen ci jàpp daal ci ñëpp jàpp wax dëgg yàlla ngir sëñ Tuubaa jàpp ci ngir dëkk bi dëkk bi lu ci waa def sa bopp nga ko defal kon da nga gis léeg-léeg sax jeeg bu ci root ba mu yàgg ngay daanu miir ñu yóbbu la hôpital léegi duñ la doo am jàmm doo am salaam ndax mu root boobaag léegi daal noo ngi ci mu root rek noo ngi koy dund ba suñu góor di fekk na ci suñu gori di ko dund ba nga xamne ñaari fan ñet da ngay sék kenn teud ci nga dem yobbu hôpital ba ak légui bis bu set no nga ci rek ci ñàkk ndox Ah, moom la ni tawat rek ndox ah, gis nañu euh mën Ah, tawat waaw xel ni mu ne yaakar am na ba no ngi no ngi teelu bu yaakar amé ban gis ko ba xéewal gi nga xamne ne na nun noo ngi di muñ bobu fi mu ne koy muñ ba ànd ak suñu goro di ko muñ ba nëgëni sii léegi nag lu lu luñ gis rek ñu xam ne nag Madiyana soppi kon waaw taxaw Madiyana lépp noo ngi koy toppatoo waaw loo xam ne loo xam ne ci Madiyana la ñu ngi koy liggéey noo nga ca digg ba waaw ñu ngi koy jox kii mooy borom kii moo fi ne xale bu góor bi moo fi ne waaw waaye wax dëgg yàlla moom ñak ndox mi da yaat na lool ci mariage ñu jéegi mariage ñoo roto roto roto ba gis ak roob ci gis jang bo na mariage ngay sey sax mo la doyna ndax ñakum ndox root nañ ba son ñu bëgg ku ñu dimbale lool nak ta yalla tax wa mom ñong ci mom dem rek ñew nañ ci wa ñong leen bëgg ñoo ñong ci bëgg japp bu baax ñoom ndax dëgg yaal nañ ci japp mom fu mo ne am ndafit dinañ fex ba dag moom wa ñong ngi bu baax kenn moom mom kenn ba ñaar jàppale mariage ci ndox mi mom mom mom bu ñu defoon bët bu set téeméer jaral nañu ko ndax ñaakum ndox mi sax bu ñu ko doon defaloon jaral nañu ko ndax dañoo rootoo moom yàgg na ndax xam naa fii moom bi fi dëkk moom jamono seen blaat bari fi laa dëkk waaye dañuy rootaan bëri ko ñaar fukk ak juróom wala bëri ko fanweer ba si mariyaana ba fii ne moom dañuy ñàkk ndox ak mbedd yi taa manque courant tam def nañ ko lool waaye ndox mi moo ñu gën a saxal daal fii ne moom waaw mariyaana moom ñàkk ndox mi soxna yi moom 4 heures ci guddi la ñuy jóg di rooti dinañ ndox lu jege kilomètre doo am ndox nañu jàppale te màggal gi tam mi ngi ñëw bisu màggal gi daanaka seen i gan mu ñu ko topp ndax gan ñi ndax ndox màgg ndox moo tax fi nekkee maanaam xammee nuñ màggal ak bu du màggal lañu yemale rootaan mi ba du sax dañuy root koñ bi yëpp daanaka gis nga ab tiwoo sax amul suñu mbedd mi amu fi tiwoo bu ma nga waaye nun dañuy rootaan toujours fi ne màggal ñu sax dañ jënd bëri ga bëri ga téeméer lañu jënd ndox doo am ndox xam ne ndox mi ñuy am sax mënuñu tam maandal suñuy gan daanaka toujours noonu lañu def bu mujj dañu jënd ay sase ndox di jox suñu gan ñu mën ko naan. wa taxaw madiana mom nun madiana lañ am kon nak dañu wara jappelé wa madiana ndax diñ bëgg ñu mën ko am ndax ginaaw góorum ak maire bi fi nekk jappelé wuñ madiana ndax Madiyana lamp làmp amuñu ndox amuñu dara amuñu ko dimbale wuñu tan borom fuk juroom wala fuk dërëm ñaar fuk waaw waaw fayeteel dañu ñëkënde rebu na ko waaw waaw di jël di yobbu di fayé ko am gëna xam waaw sama ko de déedéet ci seetaa beneen liggéey jafé jafé yoy askanu Madiyana lim lolu mo waral ndaw yi nga xamé ni ñu dëkk ci quartier bobu ak seeni kilifa ñu mën ko wañi ci 1 ba 6 ñu jog taxaw booloo ci génn kuréel gu ñuy wax ànd taxawu Madiyana ngir saafara jafe-jafe yi nga xamee ne askanu Madiyana ñu ngi koy dund bu yàgg ba léegi fi ñu tàmbalee seenub liggéey nag ñoom waa ànd taxawu Madiyana mooy ñàkkum ndox mi nga xamee ni askan wi dëkkee ci Madiyana 1 ba ñu ngi koy dund ñu ngi fii ci quartier Madiyana 3 ñoom ñi nga xamee ni bokk nañ ci ñi ci gën a tarle foofu la ñu tàmbalee liggéey bi ginnaaw bi ñu ci déggoo ak waa hydraulique ak waa Maaw Rahmati ñi yor ndox mi ci Touba jël nañu benn technicien bu xarañ ci wàllu liggéey boobu génn ci seen gafaga ñaari million ak lu teg ngir tàmbulee saafara jafe-jafe yooyu nga xam ne ñu ngi koy dund jëm ci manque ndox technicien boobu ànd ci liggéey bi ak mboolem plombier yi nga ne ñoo nekkee ci gox boobu di Madiyana ngir ñu àndandoo saafara jafe-jafe askan wi jëm ci manque ndox liggéey bu mag bi nga xam ne song na ko ànd koog man seen technicien Serigne Bàcci Ñang ma ànd ko euh, président Serigne Balla Gaye ak mbooleem euh, membre de bureau mi mu ko àndal ànd koog mbooleem plomberie Madiana ak euh, plomberie waa Saam yi nga xam ne ñëwoon nañ di jàppale ci liggéey bi ba ci ku mel ni Dansar te ñu sonn ci liggéey bi lool léegi nag li ñu doon wutal Touba Madiana ndox moo leen manqué woon ñu root ba sonn liggéey boobu saytu naa ko ci ñaari at ci ginnaaw gis réseau bi yàlla dogal na tey Euh, jox teg nañ ko ci sama loxo génne naa ko lii mooy réseau bi nga xam ne nekk na ñaari forage réseau doole ñaari forage te noonu laa ko waxee waaye réseau bi ëpp na doole ñaari forage ndax réseau bii ma taxaw tey 160 euh, bi jógee jànnatu jëm euh, Luqatul Mubaraka mu ngi dajeeg benn 160 boo xamante ne nii dafa jógee ca forage su Darahman lëkkaloog forage su jànnatu lëkkaloog forage su Saam ña nga lëkkaloo ca porte yu xong ye ci ci euh, Touba Sam léegi nag euh, forage boobu tuwa euh, boobu andi nañ ko def ko benn réseau ba nga xam ne réseau sociaux la boo xamante ne moo waroon fu manqué ndox ci Touba ñi jël fa ndox mën naa may foofu ndox ci réseau bi réseau sociaux la boo xam ne dajalee na forage yu bari bokk na ci beneen forage bu mu jël boo xamee 315 bi bokk ci jumaa ji lëkkalee nañ ko deux cent cinquante bi nga xamante ne moo dem jànnatu jaaree euh, ñu mu lëkkale jànnatu ak euh, euh, luqatul mubaaraka ñu mu booba moo amaat cent soixante ñëw wiire ñëw fii ci xuru Madiana mu mu taxaw foofu ñu def ko réseau sociaux boo xam ne dañ faa denc ndox ndox moomu ñu denc foofu nag dañ na Madiana yàlla dogal na tey génne naa ko wan wan bi première wan wante uh, 150 la mu ngi nii ngeen taxaw di ko gis nii mu ànd ak benn tee boo xam ne moom laa fi indi ñu def ko fi waa uh, ànd taxaw Madiana jënd ko ak matériel yi ngeen gis ñu taxaw nii wan bi mu ngi jar fukki junni ak ñaar di 60 mille tee bi mu ngi jar 80 uh, francs di 60 80 di fukki junni ak juróom benn léegi liggéey boobu nag ànd naa koog waa ànd taxaw Madiana ak waa Maawu Rahmati ak waa hydraulique ak waa ak ak waa maire am ci ay autorisation ñu dox ko ànd ko waa waa waa kaat waa kaat ànd taxaw Madiana ak mbooleem ñi bokk ci ànd taxaw Madiana ñoom seeni ñàkk ak seeni Pastef def nañ ko ba génne réseau bu mel nii tey nag ñu ngi leen di won ne ubbi mu dem rek moo ci des yi ñu taxaw tiwo yu mag yi ñu taxaw nag fas nañ yéen a ñoo ngi ñaan ñaax mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen waa Madiana surtout waa Madiana na génn seenu ñàq ñu mën a amaat tiwo yu mel nii yii ci def ko addiya ñun ñëpp ñu laxasaay di ci jiital sama bopp nag ak ndax Madiana laa dëkk waaw maanaam euh, du manque Euh, Touba am na ndox am na fu manqué waaye ndox bari na fi li nekk ci Touba mooy day bu màggal jotee dañuy jëli waa Dakar andi leen fii ñu seere réseau bi su ñuy dem duñu won réseau bi fi mu nekk ci plan lañ koy def plan yooyu ñu koy def nag faux euh, faux plan ndax fu war a yegg du fa yegg bu waree jëm gauche ñu ne mi ngi droite ndax réseau bii ma taxaw dañoo waxoon ne mi ngi ci 30 bi 20 euh, bi takkaloog 30 bi di jëm saam foofu lañ ko def moo nekk ci plan bi ci kayit yi euh, te réseau boobu bi mu ñëwee ba digg 30 euh, boobu jëm saam nga xam ne moo taxaloog 20 mètres bi jëm ci jóge ci mbaar yi foofu lañ waxoon ne foofu la réseau socié bi nekk nga xam ne mooy réseau bii ma taxaw tey man bi ma ko gëstoo xool plan bi nekk na loolu ci plan bi mais ci euh, pratique def man def pratique ci ñaari ci ñaari samay branchement ndax def 30 ans Euh, ci ci ci Madiana waaw génn def 30 ans en carrière entreprise yu bari jaar naa ci muy CDE CSE ESMB euh, euh, e di Habib Gaye foofu lañ ma defee foofu ma def sama formation aussi ci école Ngalandou Diouf formation Ngalandou Diouf bu waay léegi biñ ne tey nag ñëw naa fi waaye Touba ndox a ngi fi na saa suñ ma ko laajee réseau buñ soxla suñ ma ko laajee dinaa leen ko ubbil ak gox bu man di doon incha allah ànd taxawu Madiyana di sàkku jàppaleek askan wi dëkkee ci gox boobu ngir ñu àndandoo booloo saafara jafe-jafe yi nga xamee ni mbooleem ku dëkkee ci gox boobu yaa ngi koy dund bu yàgg ba léegi mi ngi nii te lépp bokk ci li nga xamee ni sëriñ Touba Seexul Xaddim ñaanoon na ko ci dëkkam bu sell bii di Touba te waxoon ni suñ boroom aaral na ma dëkk bi